xaw bi daa mujj ci man. are you naa dem soo sa am naa léegi. sonn laa def. démb damaa kii woon football woon Ami Cissé. Ah sax. Hmm. ma guddee tëdd ab mais damaa raté raté raté raté raté. boobu soxla mais dugal naa. dugal naa moom mais après dama raté raté naa trois occasions yu franche. billaahi. waa H24 nañ ma baal rek garaawul nee naa leen est-ce di ngeen ma convoquer match bi di ñëw. doo dégg sama noon nga. xaaral mu pare ñu woo ñoom Bachir ñoom Aboulaam Aboulaam moom lu ma yàqu daf koo fàtte mais garaawul ñu dem ma dem. bismillah bés bi le jour ñëw ñun ci Diomaye sauve son PM contre Benno. Diomaye selon Ousmane Sonko di nee ci li nga xam ne bennoo. gasoon na ko. lalal ko ndigg sërëx. 84 naat mu fatal. 84 à 84. article 84 article 84 l'arme fatale. c'est l'arme qui tue. Diomaye tiire na de le président recourt à l'article 84 de la constitution pour éteindre la motion de censure fay na motion de censure bi de waaw. waa Benno dañoo taxaw ne xanaa ma Mandiir Badjo Diomaye nee ne. xanaa xanaa doo fi jaar. mu ngi nii dañoo bëggoon laal motion de censure pour daaneel gouvernement bi Diomaye nee ne du ngeen ci dal ndax lan dafa woote ab session extraordinaire son ordre du jour est prioritaire devant celui des députés ordre du jour bi mu teg avec quatre points si je ne me moo gën a daal nekk daal priorité Abdou Mbow a il perdu. par son indiscrétion Abdou Mbow a-t-il perdu par son indiscrétion il était indiscret de leerul ah dernier point à l'ordre du jour la p DPG servie en appât DPG du am assemblée de du am assemblée bi du am assemblée bi mais mën nañ tas assemblée ci instant bi ñu ko tasee ñu dafa DPG comme pare woon nañ pour def DPG fële comme pare woon nañ pour def DPG grand théâtre gars yi ko. gars yi la ñuy bañ moom laa yàq moo tax ma ne mën nañ koo tas en deux pas ñu dem ñu dem assemblée. woo fa askan bi. woo fa askan bi. woo mbooloo woo magistrat yi waaw woo mbooloo comme mbooloo ñoo leen doon représenté député yi. mbooloo mi ñuy représenté mais ñoom représenté wuñu mbooloo bi Ami Cissé pourtant li wax c'est pertinent de léegi mbooloo bi ñu ne leen léegi yéen ñëw leen. day xam. waaye mbooloo moomu nag mooy ñi nga xamante ne mooy député yi ñoom ñoo représenté mbooloo moomu. waaw léegi député yi comme ñoom représenté wuñu leen ils ne sont pas dignes d'être député yaa ko doon wax Ami Cissé ñu ne leen tas nañ leen fi ngeen nekkoon léegi mbooloo yi ñoom soxlatuñ ko leen représenté nañ ñoom. léegi mbooloo mi ci boppam mooy ñëwal boppam. mooy ñëwal boppam. fooy neex toog Ousmane Sonko dina recevoir question ba tax ak ay ñaxtu. dina ne su ma yëgoon dem assemblée. su ma yëgoon dem dem fekk fa ñoom Abdou Mbow mu gën a lëru dernier point à l'ordre du jour mi ngi de l'assemblée le budget qui vit vote. wax naa ko fi sànq. na ko par ordonnance. xanaa ñu reconduire budget ba rek. mais reconduire budget bi tamit est-ce que dina mate est-ce que doo doo doo gouverner waat selon. dina yéeme loolu lépp piccoo mbaaloo bee ko waral rek ak doo dàq bi. Birahim Seck s'interroge sur l'utilité de la dissolution de l'Assemblée moom da wax na ci njëriñ bi maanaam moom il est pour d'accord na pour ñu tas Birahim Seck Forum Civil le piège de la reconduction du budget Ami Cissé ñëw na mhm. reconduire budget piège la de les sept sages pour régler le budget waaw mën na nekk. budget 2023 quand Ismaïla Madior Fall dégainait l'article 52 pour gouverner par ordonnance amoon na fi. gis nga fii régime waaw fii président mënul décider de tout. mooy mooy nekk ci priorité ci lépp. du régime parlementaire. même bu amul assemblée. lay mhm. gouverner. loolu moom constitution bi moo jox suffisamment de pouvoir au président de la république pour mu doxal. c'est bon démarrage imminent de la traque Sonko confirme l'interdiction de sortie du territoire gis nga fii. très bien. sànq bëgg naa ko wax mu rëcc ma ci fii ngay xamee ni yàlla rek ay buur. Mhm. moom la tere woon mu génn réew mi ay jamono. Mhm. léegi moom ci ñi boq ci ñuy tere nit ñi pour ñu génn réew mi la moom. waaye ci ban anam. est-ce que dafa utiliser pouvoir. ci beneen anam pour tere leen ko dafa utiliser pouvoir ci anam bu légal mhm. maanaam ñii li ñu yor du seeni alal traque des biens mal acquis comme ni ko soose wax mhm. Mhm. ne leen doo leen génn ay ñooñu ay rapport moo leen épinglé sax nag ay rapport a leen épinglé amul kenn comme ci singli ne ko yow mii nii nii loolu yoonu Sonko new ci yenn yoonam new maanaam moo tax ma ne ni yoon la légalement la utiliser pouvoir xam nga tey jii nii Sonko bu nekkoon ci opposition dina diw doo génn fu mu par quelle voie légalement la utiliser pouvoir yàlla kese kese kese kese kese kese mooy buur xii et Diomaye pour une coopération renforcée le grand bond en avant grand bond en avant ba ko moowoon seen ndam ah? si si si xii Xi Jinping Xi ne ko kii baax na Xi Jinping seen tur yi rek ak ak ñàng wala <laughs> xii Xi Jinping bonkal la bu koré bi la xoolal bu may kii ba yëkkati wala may kii bay expliquer dictature xoolal seen tur yi mën nga prononcer ko xoolal problème dafa wala loolu ma jaaxal ci kim élèves yi laa naan tur bi du ko yi kim di sol waaw Sénégal yëpp xaj nañ haute couture tubéy joo xam ne sëñ bi ni yaatu na xeetu yaatu goo xam ne. <laughs> mi xaj nañ. léegi léegi waaw dama noppi balaa ma fay créer kooku. non déglu déglu olof. kooku la dëkkam amoon ñu ko fi kaa yi mu rey leen. kenn ko fi wàccee yére yi a rey. Bassirou Diomaye Faye 24 heures yi rek ay dëkk Bassirou Diomaye décret convoquant l'Assemblée nationale à une troisième session extraordinaire avec quatre points à l'ordre du jour. dernier mooy DPG bi du fa amee waaye nag dana am ji calcul par dessus tête DPG ou non Sonko joue le tour de oui. l'article 97 euh, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale permet face à toute diligence de prolonger le délai de la DPG d'au moins huit jours après la saisine des députés il a huit jours. il a huit jours loolu mooy problème bi de. déclaration de politique générale du am. point bi sax boo saagaloon luñ ko fa luñ am jot def ko waxtuma ak. cinq six sept huit neuf dix onze douze l'ordre jour. bi septième jour bi. Hmm. septième jour bi lay pare c'est bien calculé. moom il a huit jours en tout cas xam nga démb la démb lañ jël décret à partir de démb la am na huit jours. Mhm. balaa huit jours yee jot. li sëñ bi waxoon du eh, eh, direct news ñëw ñun ci assemblée nationale session extraordinaire convoquée le dilatoire risque de l'emporter sur les principes républicains. Mhm. xam nga li gënoon rek mooy député yi nekk ay républicain kon fi yëpp duñ fi yegg. mais malheureusement dans le décret transmis à Amadou Mame Diop le chef de l'État a énuméré quatre points qui devaient être débattus lors de la dite session ci session extraordinaire bi nga xam ne woote nañ ko nag ñeenti point ci la ñu war a waxtaanee il s'agit dans l'ordre des priorités de trois projets de loi inscrits dans l'agenda de cette session et déclaration de politique générale trois projets de loi bu jëm ci ministre de la justice. justice uh-huh. ministre ministre des finances. et du budget ak affaires étrangères ak affaires étrangères ñett yooyu. li ko ñeenteel mooy déclaration de politique générale. Mm-hmm. mu ngi nuyu avec ces trois projets de loi et le DPG homologués objectivement on peut se demander si l'Assemblée nationale aura le temps matériel pour mener à bien ses tâches avant le 12 septembre 2024 non. du ko du ko def. maanaam dañuy laaj ndax assemblée nationale bi moom mën na am temps pour lii nii lii nii mu def ko ba mu baax maanaam quatre points yi ñu matale ko soo see nee na mënta ne le président Diomaye a limogé dàq na Abdoulaye Daouda Diallo ak Aminata ngi Ndiaye il use de tous ses droits sauf celui de demander à Ousmane sunko de faire sa déclaration de politique générale d'existence Thierno Alassane Sall nee na moom moom def na lépp li nga xam ne yoon may na ko ba mu des war a wax Ousmane Sonko dëgg mooy dem ji def déclaration de politique générale Thierno Alassane Sall lay wax les observateurs craignent que cette déclaration de politique générale, inscrite au dernier chapitre de l'ordre du jour, ne puisse pas se dérouler avant la date fatidique du 12 septembre 2023 qui va décréter la mort de l'Assemblée nationale. Ici repose. Assemblée, le 14e législature. Has been. Has Il était une fois. It's mais ñi doon wax ne. moi Siré naa la woo. Euh, soose doon wax ne naan euh, ñii duñu ay stratège wala ñii dañuy doog a dugg ci politique xamuñ je pense que lii nii leçon la pour ñoom. ñoo xam lii leçon la pour ñoom. wow. ñi naan ay stagiaire lañ ay boy lañ. <laughs> kon de booy jàngal lañ. stagiaire yi jàngal nañ maître yi de. ndax lii ko xarañul du ko def. Ah, politique te li gën a garaaw mooy au dernier moment lañ ko def. imaginel mi ngi mel ni. mi ngi mel ni ñaari équipe yuy joué par exemple. ñu ngeen am ku nekk am un. pourtant ba démb. ba démb ngeen nekk final. waaw quatre-vingt-dix minutes la match war a durer. a ce pas waaw ci quatre-vingt-neuvième minutes yi quelques secondes des match bi tas ñu dugal bi dañuy dugal bi rek match bi tas. dëgg hmm. léegi problème bi démb. léegi problème bi mooy. léegi problème bi mooy motion de censure ba fan lay mujj. tàbbi xanaa bu ñu defaatee kii. xanaa assemblée bu bees bi bu ñëwaatee ñu motion de censure xam nga xam nga démb avant kii bi di génn lettre bi man dama doon xalaat ñi ban stratégie la ñuy teg man nag j'étais persuadé en toute franchise que ni dinañ contourner li waa Benno teg pour motion de censure man j'étais persuadé démb l'Assemblée s'est réunie ñoom vendredi lañu war lañ bëggoon def motion bi jàllale ko <laughs> maanaam suba. dem ci 7 heures la bàyyi joomaay bàyyi bañ julli tàkkusaan ba sëlmal <laughs> mu ñaam <laughs> mu ko am Serigne Ndiaye noonu hmm? soose moo tax beneen question bi ñu posé mooy le temps n'est-il principal ennemi pour Benno yes instant Benno benn adversaire la am mooy le xajatu fi li waa ji ne woon sëriñ bi li ko honorable bi waxee ñaanal ñu pour ñu mel ni réewu nasaraan si mu ne ko xaju fi mu foog ni sëriñ bi dafa war a fatu mu ne ko déedéet dafay xaju fi diggante bii nii nii nii ñu mel ni nasaraan si xaju fi waaye pour waa Benno laal seen motion de censure xaju fi xaju fi merci Ami Cissé dommage la démocratie et les fondamentaux de la République ont reçu un sacré coup ah comment ah, mais lii suñu démocratie luy démocratie c'est très normal c'est il n'a désobéi à aucun principe de la démocratie. li mu def yëpp yoon moo ko may li président def yoon moo ko may te daf leen di yoon bii nii nañ ci àndandoo ñu ne amuñu moom mu jël yoonam. c'est ça ah Dakar Times ñëw ñun ci Afrique de l'Ouest Riyad investit trois mille cent quatre-vingts milliards. ces financements couvrent 407 projets dans 41 pays d'Afrique subsaharienne accordés par l'Arabie saoudite à travers le Fonds saoudien pour le développement le Sénégal devrait être éligible à ces financements. Cependant, avec l'annulation du contrat d'Aqua Power, l'attente risque d'être encore très longue pour gagner la confiance des Saoudiens. mu ngi nii dañu ah, waxtaan rek. Aqua Power. dañu waxtaan quoi ñoom ñoo fi amoon jamono jii ay quelques kii. non le ministre de l'hydraulique Cheikh Tidiane Dièye. waaw moom moo annoncé ni. dafay rompre contra bi ak ak waa Paaw ak waa Paaw ñoo waroon defar usine bi soppi ndoxum géej mi waaw pour ñu mën koo naan moo tax Mary Teuw Niane demoon fa mooy am na am na benn kii bi nga doon expliqué yaa honorable voilà waxtaan yi waxtaan waxtaan parce que ça diplomatie mais waay waay mais il faut qu'il y ait des coopérations. waxtaan la rek xoolal tout est possible. tout est possible mhm. waxtaan la rek. dañu waxtaan rek. Sénégal war na cee mën a bokk parce que tamit lu ci bëri moom mooy kii. Mhm. ñu dem les éco yéenekaay ñoom ñu ci pour contrer la motion de censure Diomaye coupe leer sous les pieds des députés de Benno ca source ba la ko daggee fa muy commencé. il annonce que le DPG puis met en veille la HCCT et le CES. Mhm. nee na déclaration de politique générale Ousmane Sonko dana ko amal. sorti musclée du Premier ministre contre les dignitaires de l'ancien régime Sonko transfère le gatsa gatsa au sommet de l'État indiwaat na gatsa gatsa bi de <laughs> le œil le œil pour œil dent pour dent. Mhm. waaw ci lan reddition des comptes yi la de il n'y aura pas de motion de censure wax na ko benn. Ah. dans une dizaine de jours l'Assemblée sera dissoute. Mhm. fépp fukki fan assemblée danañ ko tas reddition des comptes dans les jours à venir c'est par dizaine qu'ils vont rendre compte maanaam 17 jëm lu kaw. ñoom 17 hmm. jëm kaw ñoom ñëw di rendre compte. di rendre compte opération gox bi commencé na de gox national trois ou quatre d'entre eux ont pu s'échapper mais ils sont localisés à Dubaï Canada nee na ñett ba ñeent ci ñoom daw nañ. Hmm. waaye nag ña nga diggante Canada ak Dubaï. ñooñu de dugal nañ si fa lañ leen nattee. Hmm. toog leen. enquête yéen kaay ñëw ñun ci crise parlementaire manœuvre politique assemblée nationale daal lañ doon xaar ci moom mu ngi noonu assemblée bu bëri coow assemblée boo xam ne jàppal bàyyi léegi nag moo tax nag ñuy di stratégie politique yi ku ci nekk di xool nan ngay dérouler une session extraordinaire convoquée par décret président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote na l'ordre du jour inclut la déclaration de politique générale ah, ci ordre du jour bi DPG bi du am du fa am les frustrations des députés de Benno Bokk Yaakaar mer nañ de les analystes s'interrogent sur l'organisation des prochaines élections législatives élections législatives nag soose mooy laaj bi ñi nga xam ne ñoom ñoo def ay analyse daal ñoom ci loolu lañ samp laaj élections yi nan lay amee ci yan condition la ñuy amalee élections yi waaw ñu def léegi yéen kaay ñëw ñun ci lutte contre la recrudescence des crimes la gendarmerie interpelle deux mille six cent trente individus. trente individus. li gën a bari. bari na kay. ñi fu ñu ñaari junne juróom-benn téeméer ak fanweer. ñoo xam ne interpellé nañ leen. pour xeex. ak ray gi. Hmm. de la république assemblée nationale la guerre des pouvoirs nee nañ daal jàmmaarloo moo am entre exécutif bi ak législatif waaw Bougane Gueye Dany ñëwati na gëm sa bopp les sénégalais ont d'autres priorités abalale nañ ko pistolet abalale nañ ko pistolet ren yàlla ki ko buggal mu tiiree bal ki koy moom instant bi jeexal na de dafa ko dañ ko àll pistolet ki koy àll moo war a ba abe léegi ah? vérifié nga micro man day grincé dégguñu ma hmm? maa ngi dégg sama bopp fële ci biti ah dem l'évidence yéen kaay ñëw ñun ci guerre primature hémicycle coow li am ci diggante assemblée nationale ak primature bi Ousmane koo jiite le décret divin de Diomaye ndogalu yàlla la yàlla yàllaa ñëw le décret divin nañ jaar fii lañ ko waxtaanee ngeen di déedéet mu ne man ma indi sama ndogal. ñu ne micro yi dafay dafay dafay grincer. ndogalu Diomaye la. du leen du ñu ko régler s'il vous plaît. ndogalu Diomaye la Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye viré dàq nañ leen. par. dañuy wax remercier waaye bu ñuy wax viré. décret viré dafa dafa dafa diis de. waaw remercier. Benno Bokk Yaakaar de censure une motion de censure non nee na Mame Diop convoque les députés Sonko réplique annonce la reddition des comptes l'interdiction de voyager à certains mm -hmm. depuis la Chine le président de la la paix des PG ce jour Chine la ko defee Chine Chine c'est bon baax na léegi Cheikh Mamadou Dieng sur le rejet de la suppression du HCCT et du CES le casus belli de Benno hmm. Hmm. kii nee na ci li ñu tas daal ñaari institution yi Mm-hmm. jur na coow de casus belli source de conflit littéralement casus belli. Diouf mm-hmm. Mamadou maa ngi lay nuyu bu baax di la. Birahim Seck nee nañ publier rapport bu forum civil. ñu ne waaw. l'indépendant yéen kaa ñu coopération bilatérale Chine Sénégal une dizaine d' accords signés signé waat nañu ay de waaye nañ ci jëruñ ngalawaay mu ngi nii. Dakar et Pékin consolident leurs relations dix accords de partenariat signés entre les de pays dans plusieurs domaines lu toll ci fukki accord signé nañ ko daal ci domaine yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri un accord de prêt pour la phase 2 du projet de forage rural au Sénégal conclu un don de 27 milliards de francs CFA accordé au Sénégal sans contrepartie ñoom danañ may Sénégal lu toll ci ñaar fukki milliards juróom ba pare amul dara lu Sénégal di joxal xam nga bu dañ daan joxe ñu ne la kaay jël géej gi bu ñu euh, euh, léegi nag loolu amul un accord de prêt ak accord de prêt boo xam ne daal pour phase 2 du projet euh, de forage rural forage yi nga xam ne war nañ koo amal ci yenn gox goxaan yi tension politique gestion du pays Bougane Bokum et Tass pilonnent le régime ñoom yéeg nañ leen te duñ leen wàcc de nee na le trio de choc Sonko contre attaque le trio de choc Sonko contre attaque ñu dem léegi ko yéen kaay ñëw ñun ci reddition des comptes dissolution de l' assemblée nationale Sonko installe la guillotine wax na la reddition des comptes va démarrer maintenant nee na ñi nga xam ni lubala luñ xaalisu réew léegi léegi léegi léegi léegi léegi léegi reddition des comptes day commencé. jooni lay def. lépp leer na pour leeral mbir mi lépp pare na pour leeral mbir mi notre silence n'est pas une faiblesse. mais nous faisions un travail méthodique. Je vous garantis que ce n'est pas des dossiers maniés. Manclair et bien fourni. Mhm. du du ay yoo xam ne daal mu ngi noonu. Mhm. Amina. Mhm. soose loo ci xam. Uh-huh. mu ngi de nee na du ay yoo xam daal dañ koy jël. ci yaa ma maîtrise bi. waaw collaboration Ibrahima Niang da ngay woote si numéro commercial boobu 77 849 17 17 bu dee da bëgg collaboration avec la 2 TV mhm. voilà. ok mhm. waxoon nañ ko fi ah. waaw xam nga track moom boo koy déclencher moom da ngaa war a am tous les éléments. waaw yi ci war moom la wax fii rek. waaw nee notre silence n'était pas une faiblesse. Mhm. mais nous faisions un travail méthodique. méthodique waaw. je vous garantis. Mm -hmm. que ce n'est pas des dossiers montés. mais clairs et bien fournis. loolu ça résume tout ci dossier yooyee ah léegi nag jot nañu jublu ci liggéey bi. Hmm? Uh-huh. delloo naa la bi. trois ou quatre qui ont pu s'échapper am na ñett wala ñeent yu daw soose dem Dubaï ak Canada kay dem Dubaï moom Dubaï restez chez vous dans les jours à venir c'est par dizaines qu'ils vont rendre compte ñi dem xanaa ci réew mi dëgg dëgg je vous assure qu'il n'y aura de motion de censure nee na ma ngay nii waatal motion de censure du am oh, c'est sûr ce qui saute sur saute et s'ajoute sans que leur propre pouvoir est fini ñi nga xam ne ñu ngi tëbëgg a daal xam ne ñoom seen nguur jeex na arrivé la date du 12 septembre ils songeront à autre chose qu'à une motion de censure danañ xalaat leneen danañ tal leneen lu dul motion de censure nee na ce qui saute sursaute et s'agite saute saute bel jigéen c'est le tam-tam des arènes maanaam nee na daal nañu cëppi cëppi ba mu ah? neexle. professeur dëgg nga. sot sot benn jigéen c'est le tam-tam des daal <laughs> soo ko nee na ñu ngi sot sot. at ba may wax yow numéro commercial mu ngi nii 77 849 17 17. ñu affiché ci écran. ci affiché ci écran soo ko nee benn jigéen. Mm. seen pexe jeex na nañ jàpp ni seen nguur jeex na mu ngi nii. Gassi gas Gassi gas Gassi Gassi gas gas le, le président Diomaye sauve le gouvernement d'une motion de censure ñu dem critique yéen kaay ñëw ñun ci coup de projecteur sur les scandales financier la guerre aux voleurs de la République topp nañ leen de traque des biens mal acquis dañ leen di traquer topp leen opération rëbb. opération rëbb et opération goqe Abdoulaye Daouda Diallo am na tam ne ñu Ndiaye limogé que le viré lor soosu kii limogé le président BRF était le CS et le HCCT faqas na leen yóbbu leen nekk ay xaaz bin par la force du décret le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas attendu de fouler le tarmac de l'AIBD pour donner suite au rejet par l'Assemblée nationale de sa volonté de dissoudre les institutions budgétivores. Réaction épidémique, conséquence logique d'une défaillance politique ou suite belliqueuse du bras de fer entre l'État et l'Assemblée nationale, le balai a fait place au sabre qui a viré volté sur la tête des deux personnalités les plus éminentes de Benno Bokk Yaakaar. xaaru ba ñëw aéroport international Blaise Diagne ma foog président Diomaye fii la ñu yéegee daa fii la yéegee mu ne xaarul foofu la nekk laal décret pour tas li nga xam ni moom mooy ñaari institution yi ndax njiit la njiit ya lañ dàq waaye nag soo seenee ni comme njiit ya lañ dàq institution yi ndax dootu fonctionné ndax njiit yaay tax ñuy fonctionné mu ngi noonu nee na nag lan moo ko waral est-ce que du par parloo bi am diggante député assemblée nationale ak bras de fer bi nga xam ni waa benn ñu ngi koy amal ñu ne ah xamuñu mu ngi nii waaye daal moom def na li nga xam ni yoon may na ko ko mhm. des deux personnalités les plus éminentes de Benno Bokk Yaakaar boo xoolee ñu topp ci ginnaaw président Diomaye yëpp bennoo lañ Amadou Mame Diop Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo. Aminata Mbengue Ndiaye borom parti socialiste. ñoom ñett ñoom ñëpp ñu dem. Mhm. ah Fatou Cissé loolu la gis ñu dem Ami Cissé yaa ngi dégg hmm? laas yéene ci réplique la motion de censure contre Sonko la traquenard de Diomaye hmm. Diomaye sauvé Sonko de yéen ma takk kii moo kii dafa kii moo tax muy muy muy grincer est-ce ko téye ñoo ko ko wàcce tuuti fu mu koy fu mu koy fu mu koy fu mu koy kepp. non na ko kepp foofu. ah bien xam mën na kepp. li yëpp sensé la. <laughs> tam ma def nii. <laughs> la woo de. loolu bi ñuy seetlee compte yi nag moom day commencé ñu dem baax na l' observateur yéen a kaay ñëw ñun ci jeu au sommet de l' état la surprise du président Diomaye pour sauver son premier ministre daf bett ñëpp pour tax Ousmane ko sauvé wu ci li nga xam ne moom lañ ko doon xaaree motion de censure bi ñu ko tegaloon l' assemblée nationale a encore des cartes à jouer ah comment ça am na ay cartes yu mu joué assemblée dese na cartouche. dafa xajut sànq wax nañ ni adversaire am temps bi la. walla limogeage des présidents du CES et du HCCT une solution et encore des problèmes comment kii nee na saafara la waaye am na yeneen musiba yu mu jur yan musiba les manœuvres politiciennes entre la présence l'Assemblée nationale et la primature ya nga xam ne daal ñu ngi nekk ci ay ay politique yi dox ci diggante présidence bi nga xam ni Diomaye ko jiite Assemblée nationale bu Mame Diop ak primature bu Ousmane Sonko DPG l'accélération de la procédure et septembre délai DPG bi 11 septembre 13 septembre 8 jours septembre mooy délai assemblée nationale. waaw ah, peut mhm. mais ba tey taxul mu xaj fi. xaju fi. Mhm, il bastonne ses deux parents qui ont donné en mariage sa fiancée à son jeune frère. mu ne lan parents la dóor dañoo jël ko muy bëgg jox ko raxam mu tax ko. waaw. ci gàttal ndax dama ko dama. dama koo liir nii. Ah. déet waay. kii ngi bëgg a dëkk kii ngeen jël ko may ko rakam xaw ma magam. waaw ah, waaye yéen tamit. ah ko ah, wax dëgg yàlla moom tamit kenn du moom. <laughs> yow nag yow it nag jànq kenn du yow. jànq ndax. yow ñuy nangu ñu lay ba paasante yow kii yor la nga see ah jii. fan la ci Matam sax <laughs> Matam daa yaatu. Jokalante <laughs> Jokalante nee na ko yéen waa Matam. woo woo Doudou ngi doxaan ngelu nguur Doudou ne ko waaye nañ dem vaar mu ne ko bu ñu demee vaar ñu ruus la. waaye moom it bastonné nag rëy na. waaw bastonné rëy na dóor say dóor say parents moom ëpp naa def dëgg yàlla. ndax jigéen ci mbëggeel rek. Bombardier nee na day retraité. Hmm. le point yéen kaay ñëw ñun ci le maire de Sangalkam Alpha Bokar Xuma alias Passo considéré comme étant l'un des plus grands martyrs du défunt régime. Ah <laughs> li ma li ma non li ma xalaat sax du ma ko wax. <laughs> waxalaay sax non non je passe je passe. jàpp ci. baal ma paase rek. ah ànd ah, mboq ndawale nga koy def. non promotion yi laa gëmul quoi. nee nañ de moom ci ñi ci gën a torox ñu ci gën a dee mu ngi nii c'est c'est quoi ça noppi waay day fàttali boppam xam na dafa am yoo xam ne dafa dafa flagrant quoi c'est c'est c'est c'est pas mhm. fàttaliku la rek fàttaliku waaw loolu nag ëpp naa def gars yi nañ toog te xaar rek ah, fii ku sa ku sa tuur jot rek nga ñëw mhm. ah, on a compris quoi wax dëgg moo ci gënoon deere ci régime bële. on a rien on a rien contre lui mais. régime bële l'un plus grands martyrs ci nga xam ne daal mu ngi ko doon jàppale Ousmane Sonko ak ñoom seen. le quotidien yéen kaay ñoom ñun ci le président bloque la motion de censure Sonko mooy Jomaay. Mhm. dégg

du amati. waaw waaw xaju fi <laughs> baa ngi nii. anamu avion bi de cette ligne du plomb dans les ailes de l'Air Sénégal. Ah, ah. ci redressement bi la bokk rek Air Sénégal moom dafa am ay jafe-jafe. gars yi ngi redressé. le soleil yéen a ñëw ñun ci. ay ah, yëpp ñëwoon nañ di. soleil. Air Sénégal comme poste. Eh? avancel soleil. soleil. kii day dellu ginnaaw. soleil. ah waaw bi tey. soleil. soleil. waaw kay. le soleil yéen i kaay ñëw ñun ci CESE et HCCT e dissolution de l' assemblée nationale déclaration de politique générale journée à rebondissement politique bis boo xam ne daal wax dëgg yàlla li fa am ci ay. politique yéeg wàcc jàppal joxe am jóg nin njaay ci politique démb bëri na le président de la république saisit l'assemblée nationale pour une session extraordinaire aujourd'hui wax na assemblée nationale nag buñ fa nekk di sinap buñ fa nekk di filmer waate nee na waaw assemblée jeex na session extraordinaire bi lii nii nii nii nii nii pour quatre points le premier ministre Ousmane Sonko il n'y aura pas de motion de censure nee na motion de censure du fa am à partir du 12 septembre ces personnes auront autre chose à faire que d'être des députés li ko dalee ci 12 septembre ñee nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale dañu am leneen lu ñu war a def loolu nekk député Abdou Mbow nee na moom nañ tasaal nañ tasaale bâtiment bi xappa gañ ne ko non boo waxee loolu day mel da ngaa mer mu ne ko lañ ko tasaale ça veut dire que ñun am nañ ay métier mu ne ko ah après na ñëw deux ans journaliste la lan moo tax ñu tasaale bâtiment la Chine s'engage pour le Sénégal industrialisation agriculture lu jëm ci wàllu mbay beeg industrie mhm. Chine déggoon na ci ak Sénégal de yàlla nañ ci xaj rek mhm. ñu def libération yéenekaay ñoom ñun ci affaire Prodac mhm. wax naa ko fi sànq le rapport de l'IGF transmis à la DIC kon de Mame Mbaye Niang mu ne dig jël mu ngi nii affaire Prodac Prodac bii. kon de Mame Mbaye Niang bu waaj. ak ñi ci tudd ñëpp. dafay dem saisir euh, kii Ousmane Sonko bi. kër gi <laughs> fu ci toll loolu fu mu toll. te <laughs> ne bu fayul xaalis bi. day jaay kër. dafay dafay loolu dafay saisir këram. Hmm, xam naa ne moom. loolu ci lu mu toll. kër gi daal ma nga mu nekkoon. toxoogul Sonko toxoogul kër gi daal toxuwut. bu gi la woon. te <laughs> Mame Mbaye Niang dégg gu ma fu mu fa dëkkee. Hmm? buñ ko buñ tasee ak moom daan ko ko réew mi neexatul nag. Hmm. ñu dem lii quotidien yéene kaay ñoo ngi ñun ci imbroglio à l'Assemblée nationale la DPG pour échapper la motion de censure instant bi de waaw non la DPG pour echape à la motion de censure mm-hmm. DPG bi kay day échapper motion de censure Diomaye nag woon na député yi en session extraordinaire la déclaration politique générale à l'ordre du jour la motion de censure contre le premier ministre bloquée motion de censure dootu fa am ndax duñ ko tal les présidents au conseil Abdoulaye Daouda a ak Aminata Mbengue Ndiaye out out le mandat yéeni kaay ñoom ñun ci situation tendue à l'Assemblée nationale ça tire dans tous les sens tey fan yi Ziguinchor 18 ans après l'assassinat de l'ancien président du conseil régional El Hadj Omar Lamine Badji sa famille réclame toujours la suite judiciaire du dossier bu ñu ko assassiné 18 ans ci ren waa dal daal nee nañ bi nañ ko topp point at motion de la motion de censure la wax motion de la motion de censure Diomaye dribble la menace de Benno maanaam gars yi ci motion de censure bi lañ leen motion lañ leen motion we ci motion de censure lañ leen motion we Sonko annonce Diomaye agit Sonko nee na Diomaye def na c'est vrai de dafa déclarer rek après quelques heures wala quelques minutes rek ñu xaati mbir mi mu fësal ko gars yi nee nañ Sonko daa bàyyi ba jomaay tukki muy néewal doole waa kër mag yi warul def loolu nag de Sonko warul def loolu ah. na jomaay gaaw ñibbisi. nag jomaay gaaw ñibbisi. balaa opposition bi di wàcc. na jomaay gaaw ñibbisi parce que réew mi nag faa mu am opposant loolu mënul ñàkk. donc na Diomaye gaaw ñibbi si. après la menace de Benno Bokk Yaakaar de déposer une motion de censure le président convoque une session extraordinaire à l'Assemblée nationale organisation des législatives en décembre le budget 2025 voté en janvier prochain. début de la reddition des comptes on connaît les raisons pour lesquelles Lat Diop a été bloqué Pedre lay wax nee na xam nañ kon li tax Lat Diop ñu tee ko aéroport maanaam li soo ko wax démb. moom moo tax ñu xam ne. day justifier blocage day justifier blocage Lat Diop. ca maanaam donc dafa bëgg wax ne Lat dañ koy topp moom tamit. tonton Père. Mamadou Diop Decroix apporte un soutien ferme et résolu au président et à son premier ministre. Mamadou Diop révélation nee na dissolution des institutions et motion de censure la guerre des pouvoirs ah guerre des pouvoirs Diomaye révoque Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo la DPG à l'ordre du jour de la session extraordinaire motion de censure contre le gouvernement la riposte fatale de BDF. c'est fatal c'est sûr. oui. fatal lañ. leen dóor wax nga dëgg coup fatal. dañ leen doon dóor moo tax xam nga de maa ngi doon wax moytul di dóor coup beneen coup fekk la tëb. parce que yow booy dóor coup da ngay yóbbaale doole. c'est ça qu'on appelle ping te coup ba leen fa fekk dalee na kaw kawoo. dañoo kawoo. loolu la. ma match bi dafa dañoo tas match bi. <laughs> source a ñëwoon ñun ci décapitation du HCCT et du CES les non-dits d'une mesure. Mhm. Mmh. mesure am na loo xam ne waxuñu am na ay lees waxu de maquisards. maki ak ay seen seen mujjantal triste na. Kalidou Koulibaly nag capitaine bi wax na. lu mu wax. dafa doon conseiller Nicolas Jackson déception bi mu am bi mu defee benn at Chelsea. Mhm. ak li nga xam daal yéene na ko ci équipe nationale bi ci li mu desee ci carrière différent bennoo pouvoir l'escalade wuute guerre bi am ci diggante bennoo ak pouvoir mu ngi nii coup kaw contre coup de Jama wax nga ko le président Bassirou Diomaye Faye a freiné le processus à freiné le processus le processus de dissolution du gouvernement via la motion de censure déposée par la majorité avant-hier mardi 3 septembre puis pour apporter une cinglante réplique aux députés qui ont rejeté après mu tas conseil économique ak au conseil. des collectivités des collectivités territoriales tas indirect bi député yi ne ñoom duñ leen tas ñaari institution Ousmane Sonko nag premier ministre demande le blocage des comptes de ces institutions tout en annonçant le démarrage imminent. maanaam dërëm du fa dërëm du fa génn. dërëm du fa génn ci. teg ñàkk. dërëm dërëm dërëm dërëm. dërëm kay maanaam tas nañ ko ba pare rek. Sud Quotidien yow ñun ci non Sud laa doon wax. ñu dem Sud laa doon wax. le témoin quotidien ñëw ñun ci après le rejet du projet de loi de dissolution et la motion de censure Diomaye et Sonko sonnent la grande offensive attaqué nañ le président de la République censure la motion de censure waaw maintenant en convoquant une session extraordinaire Aminata Mbengue Ndiaye ak kii dàq nañ leen Sonko annonce le début mu ngi nii la amoon fee moo amaat fii assemblée nationale tas bi nga xam ne président tas na ko en dàqan ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñaari institutions yi Sonko nee na li nga xam ne ñoom ñoo luubaroon alal askan wi danañ leen topp ñu dem tribune yéen kaay ñoom ñun ci la crise artificielle fait oublier les urgences nee crise boo xam ne ñun ñoo ko créé daal day tax ñu fàtte li nga xam ni moom mooy njëriñ li moom mooy priorité yi tribune yéen kaay moom moo ko xamle jomaay cour circuit Benno et sauve Sonko d'une destitution. Mhm. wër na nomba Benno tax na nag ñuy bañ a daaneel gouvernement Sonko bi qui de Sonko ou Macky à trahi les termes du protocol question Bougane question Bougane. ban protocole. protocole comme manuel bi nee na Bougane nee na kan ci Sonko wala Macky moom moo trahir qui pour la reddition des comptes qui pour que les voleurs paient pour les crimes financiers. quand il faut faire la lumière sur l'affaire ONAS avant il faut faire la lumière sur l'affaire ONAS Bougane wax li la wax le verdict yéen a kaay ñëw ci la motion de censure face à la volonté de bâtir le Moïse du Sénégal Ousmane Sonko a fait une déclaration solennelle et historique sur à la tentative de dissolution du gouvernement par les mécontents de la paix qui veut rendre ce pays ingouvernable. Monsieur Sonko a pris toutes ses responsabilités en soutenant que cette soi-disant motion de censure colportée par des aigris et des ennemis de la République ne peut pas prospérer et que l'exécutif usera de tous ses moyens pour la stopper. kii nga xam ne moom mooy président Bassirou Diomaye Faye dina def lépp lu mu mën pour stopper motion de censure bi te def na ko sunkoo daa wax à la minute qui bi génn ndax lan nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk député Benno Bokk Yaakaar yi dañoo bëgg daal dëkk bi ñu bañ ko mën a gouverner bëgg a lépp li nga xam ne teg nañ ko comme projet ñu dem Vox li ñëw ñun ci Diomaye Sonko le duo fait échec a Benno Bokk Yaakaar comment le chef de l'État a court-circuité la motion de censure de Benno Bokk Yaakaar nan la def daal ba dëbb leen liñ yaa ba wër leen ndombo mu ngi nii le PM siffle le début de la traque des mâles des dignitaires de l'ancien régime. Walf Quotidien ñëw ñun ci motion de censure jeu de ruse teg xel la ku gën a muus. Diomaye sauve Sonko les deux possibilités qui s'offrent aux députés de Benno selon Mounirissi enseignant chercheur en droit public am nañ possibilité ADD Aminata Mbengue Ndiaye limogé CESE et HCT asphyxié bloqué nañ leen de. parce dañ leen a wàccee ba pare ne leen benn. Mhm. koppar dootu fa génneenti. Mhm. moo tax ñu def fàtt xam na moo tax ñu indi moo fàtt gi. fàtt nañ leen. Mhm. fàtt yoor yoor yéen kaay ñëw ñun ci gatsa gatsa institutionnel convocation de l'assemblée contre motion de censure woo bi nga xam ni woo nañ ko assemblée nationale bi nag tax na motion de censure bi ñàkk bañati am Sonko prononce l'oraison funèbre de l'assemblée nationale nee na assemblée nationale bii nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii léegi ñu dégg ici repose ay fan a leen fi dese hmm. waaw ay fan kese le record yéen kaay ñoom ñun ci Brahma Traoré sélectionneur de du Burkina Faso nous ne craignons pas le Sénégal nee na ragaluñu Sénégal les étalons à Dakar depuis hier Burkina Faso nag ñëw nañ démb entraînement de l'équipe nationale une quatrième séance avec tous les vingt six lions gars yi mat nañ sëkk ñoom ñëpp ñëw nañ Ballon d'or nag liste bi génn na liste bi trente nominés ñoo ci nekk Bellingham Haaland Mbappé Vinicius trois points de suspension. ñii daal lañu am yaakaar ni ñii ñii ñii la am yaakaar ni daal kenn dina ko ci jël. te au niveau mondial. au niveau mondial ballon d'or mais am na ku ñu ci fàtte de Rodri bu Manchester City. Sadio boo ko ci. bokkul ci trente nominés yi. Hmm, yàlla baax léegi carte gi dafa changé de ña ci doon bokk depuis ay at plus de dix ans bokkutuñ Cristiano ak Messi sax bokkutuñ football bi nag mu ngi kii am na ñoo xam ne ñu ngi dem retraite Rodri. Hmm, hmm. Ligue des Nations première journée Portugal l'Argentine pour poursuivre sur sa lancée baax na. Agassi. Agassi rêveur. jaajëf. na woon fa woon fa woon na woon. sonn naa. yaa ko hmm, nga mën nga tàggatoo ma tàggatoo waale waaw ah, mhm. incha allah. Mhm. après bu foofu kii rek. foroote ma diw ko sama tànk. waaw ah, loolu du problème. waa ji de dóor na ma ci benn coup boo xam ne bu ma taxee nii la gën a metti mais yàlla bëri na sutura. waaw maa ngi leen di jaajëfalaat incha allah di jaajëfal ñëpp soosee Ami Cissé. Mm-hmm. Amina Ndiaye di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw di leen ñaanal kenn dalal jàmm sam benn sam benn doom day anniversaire tey. Mm-hmm. day pend code du fay dama ko naroon message am ici sax bi ma naroon daw pour mu kii souhaiteel ma ko joyeux anniversaire sa say joyeux anniversaire dafa dafa neex day pend code du fay day pend code du anniversaire ah. yàlla may la fan ak wér amin mottali projet yëpp yaara bi amin yaara euh, ci barki weer bu si bi nga xam te ne moom la ñu nekk joyeux anniversaire day pend code du fay ñu mm-hmm. waa kër ga ñëpp ñoom yaay booy ñëpp insha allah waaw kii nee na ma moo si baax Fatou Ciss ñu ngi koy waaw ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp Mansour pare na wala pareegul ñu ngi ziyaaraat ñëpp jërë ngeen jëf waaw baax na. waaw jaajëfal nañ la bu baax. rendez-vous. ah demain incha allah maa ngi nekk Serigne Ndiaye am na dil bu nekk seen biir de Serigne Ndiaye tamit est-ce que doo leen. loo message am Amina Ndiaye wala Amina Cissé. lu xew Serigne fekkee. ma affaire la. moom ma jaaxal da ngeen a jël Serigne Ndiaye sugu sugu